Macky Sall dafa am lu mu nekk di dund loo xam ni may Maimouna ñun yéenewuñ ko ko parce que ñun Macky Sall dañu sonn pour mu falu ñun 2011 nee naa la Mamadou Diop ba ñu koy fiir ñu ngi taxaw ca kanam mënoon naa doon ñun Macky Sall di doomu Haalpulaar am lu jafe yaru ci ay séeréer muy culture boo xam ne malgré que ay cousin lañu ñaari culture la yu riche di ma may ma def appel bu ndaw ci Haalpulaar. Mhm. ci pour Macky Sall. Ah, musuma ko def tu parles Haalpulaar musuma ko def parce que dama jàpp ne Sénégal moo ëpp euh, sunu bopp yi mais il faut ma def ko parce que dañuy tàmm di dóor ci Macky ba nit ñi foog nii dañ koo amal haine mais au contraire dañu ko yéene jàmm parce que qu'on attendait beaucoup de lui fils prodige bu mu doon parcours am jaar-jaaram fi mu jóge ak fi mu tàbbi bi muy juddu di liggéey di jàng ñu bare ñu ngi fi woon nekk ay doomu baron nekk ay doomu borom alal ëppale woon ko lu ne mais moom Sénégal porté ko ba tey mu jiite ko ñu xeex pour mu falu yéene woon ko mu def les vraies ruptures parce que rupture la ñu jaayoon ñu yéene woon ko tey mag Sall buy dem bàyyi Sénégal boo xam ne ñëpp dañ koy ndamoo ba ñun Haalpulaar yi ñu koy ndamoo parce que nag ñun ñoo jiitu ci nguur ñun balaa Sénégal di am ñun lañu am nguur ñun depuis temps almaami ya te président Macky Sall balaa temps almaam yi di am moom ay maamam dañoo buur woon falu woon kon moom nguur waru ko mun a jaral muy briser ay vie nguur waru ko mun a jaral muy briser ay sénégalais ñi ko xamul ñooy wax mais ñi ko xam xam fu mu jóge xam ci race bi mu jógee ak ethnie bi mu jóge xam nañ cent depuis 1476 ba léegi président Macky Sall ay maamam dañu. fa yaramam dina daw. kon président Macky Sall ko an kaldan kaldan kay kala gondo halpular parce que hande gacce aray amen sa yi Macky Sall ganda ko bi dimo ganda enen taniraɓe amen laamima guila sénégal daraki guila sénégal daraki ceerno souleymane bal darni cheikh omar foutiw darni taniraɓe ma goni goni lamɓe aw fotani jabde an Macky Sall gouvernement walla pouvoir walla privilège walla kaalis aduna ina jaranma aɗa wiye an makky sall a wari opposant ma an makky e juude ma ousmane sonko maayi walla cheikh bara maayi walla opposant maayi prison holko jari ɗum hay dara jarani ɗum enen haalpular ken ken ken ken rimɗuɓe hay goto hay amen fotani jabde wiide neddo ko bandum eɗen goni sénégal eɗen jaaba enen ɓe ganduɗa guila sénégal daraki mbimami enen gonno joguiɓe hande eɗen jaɓa en kabde ha yimɓe ne maaya juuɗe amen pour jogade laahude mani ma wax ci tukuleur mooy waruñu nangu ñun leñol haal pulaar ay nit di dee ci sunu ay loxo ndax nguur parce que ñun ñoo yor nguur ñun nguur gi ci senegal nguur gi jégg Afrique sax si ñun la jóge suñuy maam ñoo indi fii nguur ñoo fi indi lislaam ñoo jihaat ba taxawal dëkk yi suñuy maam ñoo xeex ba senegal am kon may mun a ñun est-ce que war nañu nangu ndax ñu naan net ko bandum ndax séparatisme ndax alalu àdduna goo xam ne kenn ëppale wuñ ñun ba ñuy jaay or di jaay épice di jaay lu ne ci àdduna boobu benn xeet taxawul fii def Fuuta ak Fuuta Tooro suñu royaume la tey lépp lu am ci Sénégal ñu ñii ñoo xejal nañu est que war nañu seetaan ñun ci Sénégal 2023 ñu ne dafa amoon waxuñu Abdoulaye Wade mi fi jaar waxuñu Senghor mi fi jaar waxuñu Abdou Diouf ñu ne kenn ci ñun lam tooro Macky Sall doomu Fuuta moom moo taxaw yëkkati politique bëgg nguur bëgg rester au pouvoir ba tax ko muy briser ay vie ba tax opposant di dee ci loxoom lan moo ko jar nguur gi suñuy maam baay Thierno Souleymane Baal moom moo nangu almaamiya yëkkati ko teg ko parce que boobu buur yi ñoom loo doon jël di teg lu metti askan wi mu ne loolu du am teg les di commandement renoncer à nos pouvoirs def nañ ko depuis temps Koli Tenga la kon président Macky Sall warul nangu ku ko dugal ci loolu ndax lan ay privilèges de la vie privilèges yoo xam c'est terrestre l'histoire ne doit pas retenir ça de lui lu mu metti metti Ousmane ko doomu Sénégal la lu mu metti metti ñi ma la limal nii ay doomu Sénégal la même bu justice di continuer liggéeyam war nañ leen mën a bàyyi ñu ñibbi seen ay kër ñu weer ñu dund ba ñu dëgër ñu tegal leen ay procès atte leen bu ñu defee ñu tëj leen man waxuma bu ñu atte kenn parce que loolu kenn sañu ko wax mais nañu ko jaare la yoon parce que tey seen bakkan dafa nekk en danger président Macky Sall warut a bind loolu ci CV am criminel meurtrier parce que nag bu fi kenn wax Ousmane Sonko moo xaru dañu ko teg lu diis mu résister ñi nekk ci prison bi di xiif xiif a gën a metti xam nga nag lan mooy problème ki mënta xiif benn jour di jaay ngorom chaque jour mënta gëm ni nit mën na toog di xiif di muñ di di di souffrir kon Macky Sall dama koy ñaan mu dellu si waat dama koy ñaan ñii nga xam ne ay immeuble ki alalu àdduna moo tax ñu lay forcer moo tax ñu lay pousse yow bu ko fi bàyyi parce que nag yàgg-yàgg bis bu ñu delloo ñun ñëpp ci suuf si ëllëg bu ñu jógee suñuy maam ñoo ñuy daan te say maam dinañ la wax fii nga jaar yéene la ko woon bandiraɓe haalpular nan oɗo oɗo ko debbo jontaɗo kono mosoma hamde de gege ɗin komi haalpular dimo ka debbo jontaɗo de probléme o woni ko sénégal kono ɗum wayi ko sénégal mi mi yiɗa wonde mi yiɗa wonde no euh, wiyete neddo ko bandum eh. mi yiɗa yenne sénégalais ɓe mbiya kala haalpular ala logique nani min komi toroɗo makisal ko toroɗo a ah, ka debbo toroɗo ka debbo jontaɗo joni noon ɓayde ko toroɗo yenne yo wat yo yo saloko ko nannatete ko yo yaltu hen kala haal pulaar jogiiɗo konngol yo haal par ce que ko enen tan janngo enen yenne mbiyete onon onon jaggo a yaagi wo haalpulaar ñi wa waaw ni ma woowe won sama mbokku rek lay woo d'abord je savais pas que vous étiez haalpulaar mosuma xalaat ne aussi déggee nga noonu sa sa sa en tout cas yoo àll bay du sutura. amiin yàlla yàlla yàlla yàlla yokk xam nga Macky Sall am na ko ko fi jiiñoon ay mbir. mais Macky sàll kooku dafa xamul ne kooku moom Macky Sall la ñu ngi koy boole ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy waxee sedbe koliyaabe. ah waaw ci xeet boobu la bokk. sedbe koliyaabe waaw mooy les sedbe koliyaabe loolu mooy xam nga dafa am dëkk bu nekk dafa am ñu ko sosoo ñun Fuuta noonu la ñu dëkkee ne naa la makki sàll ay maamam 1672. dañu commencé fal non ay buur. kon moom nguur waru ko jaral lii. non c'est c'est un message parce que nguur googu moo ëpp lii lii muy xëccu nii xam nga lan xam xoolal maamam yooyu tey ku toog Fuuta dañ lay bindal maamu Macky Sall ba ñuy doon def lii moom moo doon bañ depuis temps Koli la maamu Macky Sall nii la taxawee woon avant lii maamu Macky Sall léegi moom war na nangu maamam yooyu bind livre yooyu moom tey mu ñëw ba fii ñu koy bindal Macky Sall. en tout cas moo damm ay prisonniers moo tëj ay prisonniers moo damm fàllare moo reylu ay ay ay ay ay opposants politiques c'est la première fois politique opposant nar a dee ci loxo nguur